dal leen ak jàmm ñu jukki leen ab xibaar bu tiis bi nga xamante ni daal di ne dal ci mim réew rawatina képp koo xamante ni rek imaam nga ak ulema fii ci mim réew muy Sénégal kii di El Hadj Moustapha Guèye doonoon président association des imams et ulema du Sénégal mu daal di nag ñàkk bakkanam ci ab feebar bi nga xamante ni taxoon na bi ñu ko jëlee fii ci mim réew muy Sénégal yóbbu ko ci diwaanu Paris ngir mu faj moom Moustapha Guèye di imaam daal di nay ñàkk bakkanam ñu koy jaale képp ilaha illallah wa asadu anna muhammadan rasulillah ci fàttali rek moom El Hadji Moustapha nekkoon ci RTS doon def ab émission bi nga xamante ni lañ dippe woon lettre musulmane doon ci jàngale waaye tamit di wax lépp loo xamante ni rek mbindum suñu borom la rawatina jàngale suñu borom subhaanahu wa taala moom nag di El Hadji Moustapha Guèye daal dinay ñàkk bakkanam ci feebar bi nga xamante ni taxoon na mu génne ci mim réew muy Sénégal dem ca Paris doon fa faju nag yàlla def li moo taxit njabootam di jaale képp koo xamante ne rek imaam nga ak ulema du Sénégal fii la nekk boobu ñu ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu yërëm ko